coow li mën nañu ne ci biti la yem ndax bu dee ci biir liggéey baa ngi dox nit ñaa ngi xëy waxtu nit ñaa ngi waxtu wàcc waxtu ñi ngi fay saleer yi waxtu ga gën gaa yéex le vingt cinq le vingt six danañu fay nit ñi seen salaire benn prime tardé wul oto yi ñi ngi ciy def carburant te nit ñi bu fekkee ne dañoo feebar ñu ngi leen di jël en charge seen wàllu euh, IPM kon coow li mën nañu ne ci biti la yem ñun waxuñu ne yëgu am na coow ci biir ci biti de waaye ci biir am benn gàllankoor boo xamante ni indi na ko ci bës bu yàlla sàkk li ñu war a def ci kër gi keroog rek maa ngi fàttali di tooñ ku mu doon laaj mu mu ne ma waye lan moo lan moo xew gis ngeen ciowli ne ko xam dayo li ciowli num ñu doon wax xolal image yi nekk ci ci yi zoomé ñi doon wax ñaata ak journaliste yi ñu ñaata lañu yi ñoon micro ñoo ëppoon ñu doon wax te ku ne yow da nga majoritaire am mbolo manam jité nit ñi nit ñi and ak yow jox la jox la nopp jox la am na mbooloo moo xam ni war naa nekk sa wet mbaa mu nekk sa ginaaw la moo tax matuñu woon juróom wala ci la yem la moo taxoon journaliste fa ñëwoon sax ñoo leen ëppoon lim. loolu rek pour joxe une idée. Mhm. maanaam de li ñuy wax nekk na wala nekkul. coow coow da nga ne coow ci biti coow ci biir amul coow. Hmm. ci mën a dégg ci biti boobu coow ci biti. coow maanaam wax joo xamante ni hmm. euh, ci média yi la yem. ak ci réseau euh, réseaux sociaux yi. yeggul ci biir boîte bi. ni bi nit ñaa ngi tubarkalla alhamdulilah. nit ñaa ngi liggéey amul benn jafe-jafe. Hmm, ci coow bi la ñuy dese kii di Omar Ba ci yéen moom nee na ko dàq loolu wax koo xamante ni turu koo xamante ni. Hmm. maanaam jàkkoorul ak man. Hmm. pour su ma waxee mu tontu ma. wante comme yaa ko ma leeral. moom dafa jiite syndicat. syndicat bu mu jiite. moo ko may ba noppi mu nekk délégué du personnel muy wax ak di dox ci turu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiital te bokk ak moom syndicat li waral mu wax loolu waroon ngeen ko laaj tamit lan la def ba ñu yëg fii ak moom lan la def ba muy ba ñu yëg si fii ak moom mooy ne am na ay jëf ay wax ay bind yu mu dëkkee yoo xamante ni dafa wuññi orma kër gi bokk ci liy tax nit ñi ñàkk nawloo kër gi bokk ci liy tax nit ñi xoole beneen bët kër gi am beneen gis-gis ci kër gi mhm. maanaam boo waxee ne amul li ñuy wax condition de travail que baaxul condition de travail mooy la nekk nu liggéeykat yi dama jàkkaarloo ak yow ngay liggéey léegi wax naa leen ne la le 26 jëm kaw lu ci ëpp nit ñi fayee ko nañ est-ce que yow da ngay fayee ko ma laajaat la IPM ñun de ku feebar mën nañ la faj ku am garab dañ ko jënd est-ce que yow am nga ko fii ngay liggéey ma laajaat la fi mu nekk nii. Euh, ci wàllu liggéey bi ay prime yoo xam ne kër gi daf ko warloo ak liggéeykat yi bu dee tabaski bu dee pàkk bu dee korité bu dee nawal noël bu dee prime scolarité dañ koy fay est-ce que yow yooyu prime am ko waxuma avance de avance mooy loo xam ne bu dañ la koy jox app da nga koy fay prime lu mooy bu ñu la ko joxee doo ko fay est-ce que yow am nga loolu fi waaw kon yow mi nekk ci condition yi ak ba mi nekk ci condition yi yow bu ñu la doon wax tànnal sa condition ngay jël wala da ngay ñëw jël sama condition waxa rek kon jàpp nga ne sama condition ngay jël parce que condition yi ma nekk moo gën a baax yow condition yi nga nekk en tout cas li tax ñu naan kat mhm. mooy bu weer dee ñu fay la mhm. say jumtukaay yi manqué wu mhm. boo waree am prime ñu jox la saax ak sa yelleef ci wàllu liggéeykat boo waree tukki ñu jox la nga tukki amul leen loo xam ne maanaam dañ naan doo ko def ndax kër gi amul xaalis bi wala dañ ko doo ko def ndax mënuñu ko lan mooy condition bu la waree jëndal oto ñu jëndal la oto bu la jox waree jox carburant ñu jox la carburant boo waree dem mission nga dem mission lan mooy lan mooy condition de travail ah man de loolu laa xam ci condition de travail waaye nag bu fekkee da ngaa bëgg leneen moom ah, ah laaj ngeen ko ko boo ma ko boo ko waxee ma indi ci tontu.

waxtaan ak moom ay yoon ay yoon yoon yoon yoon yoon yoon jox la ci misaal rek prime yi ma lay wax nii bi ñu koy yokk dañu daje syndicat yi signé protocole d'accord bi ñuy signé protocole d'accord mais moom signé wul protocole d'accord ndax neen àndu ci yokk prime yow mën ngay liggéey ma yow nga ne man syndicaliste la man sama ak sama yelef ngay motax nga jog ñuy wax ne dañ lay yokkal sa prime yow nga ne àndoo ci doo ko siy boo ci andé sax doo ko siy loolu yenn mana moom ne nak ci ay cadeau rek protocole bi manam ci sen intérêt travailleur yi day wàññi seen avantage en terme de de prestation médicale lolou IPM la IPM la yow prime la lay wax loolu IPM la IPM bi mën na la ci leeral bu fekkee mom nga bëgg wa leer buñ ci bindee leeral IPM mhm. waxna la sànq ne la pour taxawu ci wàllu wér-gu-yaram liggéeykat yi ak seen njoboot la IPM bi bi bi amoon dafa amee bor juróomi téeméeri millions cinq cent millions prestataires yi juróomi téeméeri millions yooyu ñu ne lan moo ko waral dafa am ñoo xam ni li ñuy wax gratuité cent pour cent maanaam ñun suñu IPM foo mën a dem bi nekkoon doo joxe dara da 100 de prise en charge Quel que gi garde gàddu lépp ñu gis ne dafa am ñoo xam ne dañ def li wax abus abus bi mooy lam yow feebaru sa jabar feebaru sa doom Ouais, amgarak, am nga rak am nga yaay am nga mbokk am nga bàjjen bu feebar nga jël say këyit jox di ci dem ba mbir yi jéggi dañu découvrir ne IPM bi liggéeylu rek waa kër gi muy liggéeykat yi ak seen njaboot am na ci ñoo xam ne dañu ciy dugal seen maam seen pap seen bàjjël seen rak seen mag seen jarbat te ñooñ bokkuñu ci ndax gratuité la maanaam mhm. doo fay dara nga def abus mhm. ba jural kër gi juróomi téeméeri million ci bor mu IPM léegi ñu ne ngir ñu rationaliser nan lañ mëna def syndicat yi ñoo dajalé ñu né comme nit ñi dañuy abusé nañu fexé ba liggéey kat bu nekk léegi di ci dugal tuutam dootu nekk gratuité 100% waaye dañuy yokk plateau technique bi dañuy yokk prestation yi dañ koy gën a baaxal ñu ne léegi au lieu de 100% li kër gi day gàddu 80% liggéey kat bi gàddu 20% te dañ ne le 20% yi tant que li ngay joxe yéggul weesuwul Vous bu 10 10 000, bu ci sa salaire mais bu weesul dix 10 yow mën nga ko fay ci place boo demee pharmacie boo jëlee garab 10 ñu def 20 nga 20 cest dire que kenn du ko laal ci sa ci sa salaire loolu bokk na ci liy defar wala bokkul ci liy defar bokk na ci rationaliser wala bokkul ci li tax mu ne avantage wul kër gi ndax dafa ne doon yok cotisation yi wa mais loolu xaalis la boo xamante ni day tax ñu mën a fay bori day tax ñu mën li ñu bëgg ci plateau technique bi ñu bëgg mu ñu am ko ñu mën ko am te yokk bi mooy lan employé ouvrier maanaam ñi gën a suufee ci catégorie 2000 francs lañ leen di laaj ñeenti téeméer bu dee koo xamante ni agent de maîtrise la 3000 francs bu dee koo xam ne cadre la 4000 est-ce que loolu jor jar naa toj am réew damay laaj rek ndax loolu jar na jar na toj am réew mu ngi noonu. ba ci ñoom rek euh, ñu ngi mën a sax li nga xam ne mooy secteur bi. jéemoon nañu ko 2021 hmm. est-ce que ndox ñàkkoon na bu ñu ko waxaatee tamit liggéey bi ci li ma jàpp ak li ma gis. lima ma bo boobu moy nit ñi ne seen xel dal inshallah le service va continuer à être assuré par la CNO. du am benn démarche aussi jéem a gisante ak ñoom régler situation wala. wax naa la man waxna la man comité de dialogue social la bok yeen ñi ci ba waxna la comité de dialogue social la bok mhm. li ñu daje. Mhm. yàggul àjjuma jee rek ak mom dajé nañ ko. Mhm. sa su nek dañuy tok di waxtaan ak syndicat yëpp. ak daayira yi ak amical yi direction territoriale yi ak section yi nek foofu yëpp dañuy waxtaan ak ñom lu tax dañuy wax ni ñun dañu bëgg anticiper ay conflits manam gàttandu ay xuloo du tok ba xuloo am ñu soog wax de manière régulière dañuy rencontrer syndicats yi muy partenaires sociaux yi dañuy waxtaan ak ñom wante bu dee syndicat bobu yàgg nañu wax ak ñom wante sen position li ci changé bëriwul bokk ci ñun li ñuy wax mais dañuy wax ak ñoom ñaan leen ne leen kër gi dal la laaj sérénité la laaj nañu fexe ba li ñuy liggéey mu nekk suñu yitte bu ñu leneen ñëw di ñu distraire am na ñu ñu ko nangul wante ñoom nangulaguñu ko wax ma duñu ko nangu de waaye ñoom nangulaguñu ko kon du ñun rek du ñoom rek la ñuy dajal dañuy daje ak ñeneen wante mom ñom en particulier moy SATES dañuy waxtaan ak ñom te suba suba su ko laajaatee ndax tay ji rek am nañu ben ndaje buñ def ak comité de dialogue bi dialogue social bi lañu wax mu moy buñu ñu buñu bu ñu bàyyi nañu ci ñom wax leen ni na kër gi nekk ci kaw ñëpp bu kenn nekk ci kaw kër gi maanaam que c'est au soit au-dessus de tout le monde

ak bërëb liggéeykaay bu nekk dafa am lu ñuy wax règlement intérieur fii nga nekk nii di fi liggéey dafa am règlement intérieur waaw am déet am na waxtu yoo xam ne da koy xëy am na waxtu yoo xam ne da nga koy wàcc na loo xamante ni maye na ko am na loo xam ne ni may ñulu ko règle direction générale jàpp ne moom réglement intérieur boobu moom daf ci tënku daa am loo xam ne ni daf koy wàcc te soo ko wàccee jàdd dañ la war a delloosi ci biir loolu la direction générale def

direction générale mënu dàq délégué waxna la mom délégué de personnel Il dafa am ñuy xétu li ñuy immunité genre genre càngaay bu wara tax direction générale mënul xey tek ko ay daan te amul autorisation inspection du travail procédure bobu mom lañu lancer moy né dañuy def demande d'autorisation de licenciement inspection du travail moy càmbar ci élément yi ko direction générale jox ne yenn na maanaam mën nañ koo licencier yéenewul maanaam kenn du ko licencier te bu boobaa direction générale dafay respecter li inspection générale wax direction générale moom ci boppam su mën naa dem ba ci ba ci kanam comme bëri na ñoo xam ñu ngi ciy jàpp di tinu naan déet déet déet bu leen ak moom foofu direction générale may leen njëkk ne leen comme ñaan ngeen ma loolu rapporté naa ko maanaam defatuma ko loolu lu mën a nekk la laa wax de waxuma mooy nekk nag dama ne possibilité la

muy sedd leen ndox mu mucc ayib mu nekk ci seen o moo tax mu bëgg ci juróomi at yi bokk ci juróomi société yu Sénégal yi nit ñi gën a fonk yi nit ñi gën a sopp yi nit ñi gën a naw ndax dina damu seen bànneex dina leen jox satisfaction bu war a mën a tax soo leen nee lim leen juróomi société yi leen gënal yi ngeen gën a naw yi ngeen gën a sopp ci réew mi dun dunu génn ci juróomi société yooyu ñuy loolu mooy suñu liggéey fi ne nii